Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf ba jëm ci li xale yi xewal mu di mbëkk gaale loo wutali bitim réew ne Barça wala Barsaq Serigne Bassirou Mbacké Abdou xalifa bi sant na ñiy jël gaale ñu bàyyi ko teg ko fi suuf ndax li ñuy def xaru la nee na ndaw ñi dellu si seenum xel dellu ci yàlla te bañ a yàkkamti baa ñuy bëgg lu suñu borom dogalul ci ñoom anki dina nañu lu jëm ci mbëkk mi xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke mu di lu mitti Sud Quotidien nañu Tuubaa sàkku nañu ci ndawi réew mi ñu dakkal gaal yi ndax loolee xaru la Vox Populi mi tuddee ndigali fatwa dolli ñu ci ne xalifa général des mourides nee na barça wala barsàq dafa aram ndax bëgg a dem bitim réew mu jarala dugg ci gaal nga ne yegg baa faatu xamal ne boo ca faatoo dangaa xaru réew mi Quotidien nañu sëriñ bi wax na ne ku dem ci gaal yi ba faatu ca sawara nga jëm ndax dangaa xaru te ku xaru sawara nga jëm lu jëm ci immigration clandestine dimba ki mi ak ni mu mel ci réew mi fan yi la nañu moo waral xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yëkkati kàddoom di wax ak ñi koy def yee na leen yedd na leen xamal ne leen ba noppi digal na leen libération nañu ca Kébémer ñoo ngi jooy seen fanweeri doom ak juróom-benn yu demoon ci gaal gi immigration clandestine libération nee nañu moo di Youssou Ndour nee na ndawi réew mi ku mu neex mën ngaa tukki tukki kenn terewu ko kenn waaye rikk waaye bu ngeen koy def na jaar ci yoon bu leen jëli gaal loolee moom bu leen ko dara jaral lu ko jara ko jar Le Quotidien xëy nañu xamal leen jiital conseil économique social ak environnemental bu bees bi di Idrissa Seck ak notaire bii di maître Nafissatou Diop Cissé ginnaaw juróom-ñaari yu ñu réeré woon mujj nañoo gise ba moo demoon këram doon ko jaale yaayam ji génn àdduna maître Nafissatou Diop waxee loolee ci laa jël dogal ne kenn du ma déggati mukk ma yox lu ñaaw ci Idrissa Seck moom Idrissa Seck journal Le Quotidien nee nañu ca jotaay ba leeral na fa ne bi coowal chef de l'opposition bi jugee ci réew mi ñu di ko mbamb ak di ko jaaba jongi Macky ci boppam ne mën naa ci génn moom Idrissa Seck ma nga fay wax ne ñii ŋaañ ak di dingat sa moom ànd ak Macky Sall ñooñee mi ñoru leen seen intérêt bopp moo leen tax di wax seen intérêt bopp leen tax a jëkk di président conseil économique social ak environnemental di Idrissa Seck nee na fa complicité mu di neexoo gi amoon sama diggante ak Macky te dakkoon ñëwaat na moom Idrissa Seck ak Macky Sall waat nañu seen complicité ba nañu tase ji ci journal li quotidien waxtaane wàllu football coupe d'Afrique bi war am ca Cameroun atum 2022 bi nee nañu gaynde yu Sénégal yi qualifié nañu ca démb la dem Guinée Bissau dóor ko benn bal ci dara Sadio neexul ba neexul waaye saajo Mané moo ay ci waa Guinée Bissau fu mu dajeek ñoom rek defal leen bagaas wan na leen boppam keroog ca kees wan na leen boppam it démb ci seenum réew stade dina kay xëy ñu ko won moom Sadio Mané ci xëtamu njëkk ba noppi bindal ñu ne tike bi njëkk bi jëm ci Coupe d'Afrique Cameroun 2022 Sadio Mané joxe na ko yàlla sunu boroom jël na ko champion de lutte ba woon di Balla Gaye 1 sunu làmb xëy nañu ko tàggee xibaar ñu ne mbër ma woon di Balla Gaye 1 faatu ci juróom-ñaar fukki ak benn ci la génnee àdduna